mais tout à l'heure le le mon co-débatteur n'a pas compris ce que le doyen disait. Mmh. c'est-à-dire que il est en train de mélanger les torchons les serviettes. et je pense que tey suñu toogee di waxtaan il a parlé de de culture de haut niveau dans un débat je pense que aujourd'hui il est passé à côté de son argumentaire. Thierno Assane Sall je le connais très bien pour l'avoir pratiqué c'est un intellectuel de haut niveau c'est un homme de principe et je ne pense que Thierno va se rabaisser aujourd'hui pour faire un manche du benn bokk yaakaar sincèrement mhm. loolu j'en suis certain connaissant Thierno c' est pas quelqu'un Thierno su bëggoon loolu comme il n'allait jamais jamais quitter le ministère mais lan moo gën a neex nekk ministre donc pour dire que tey suñu politique on peut ne pas être de camp différent mais war nañu mun wax loo xam ne moo gëm tout à l'heure vous avez parlé vous avez vous avez vu Amadou Ba dans le bureau de Karim normal parce que Karim était un patron Amadou moom il rend c'est comme le président Macky Sall il a dépassé Abdoulaye Wade aujourd'hui l'élève a dépassé son maître aujourd'hui dans ce schéma là c'est-à-dire que mënuñ toog ci dinañ léegi su ma waxee nga ne ma nga ne nga ne ma da ngay wax mais xam nga ne lii dafa rëy on a trouvé telle personne c'est-à-dire que tey eh? ñoom aujourd'hui c'est-à-dire que c'est des man légère mais mais yaa ngi dugg dans le même truc dans le même. sillage non l'a mais yaa ngi dugg dans le même sillage. parce que yaa ngi wax par exemple que le lettre l'élève a dépassé le maître dugg na. jigéen yow yaa ngi bëgg a tontu Thierno Alassane Sall bëgg a tontu keneen ak keneen. je ne voudrais pas que bi aussi. mu dem mu dem mu dem ci côté boobu. parce que lu mu waxee la moo dafa ne. oui Thierno day def le sale boulot de Amadou Ba. c'est extrêmement do do man dama la Thierno c'est-à-dire que même suñu bokkul parti je reconnais en lui c'est un homme de principe mënuma gëm mënuma mënuma gëm Thierno mënuma gëm loo Thierno son Thierno day def sale boulot pour Amadou Ba non Amadou Ba n'a pas le temps Karim Wade c'est un président de télécentre c'est un président lan la wasak ñun <laughs> amuñu temps boobu sa à dire que Karim Wade n'est pas notre adversaire politique mais Karim <laughs> politique mais il faut qu'on dise la réalité koo xam ne on ne voit pas il fait que lui communiquer mais comment peut-il être notre adversaire fii dafa am ñuy wooyee conseil constitutionnel c'est-à-dire que principe bi c'est fondamental tey pour nekk du ñun ñoo ko wax mais y a des juges habilités ñoom ñoo wax lii na war a am pour nekk un candidat mais ce que nous avons pas compris tout à yi il a mu ne Karim dafa dafa yàgg demander parce que ma ñu on a vu la sa def et temps balaa nga nekk candidat ngay dafa am deux principes xam ne ngay jurer na ne la tout à l'heure il a parlé de double national ak binationalité ñoom loolu ñuy xaw a temps ñoom temps yi ñu am benn nouveauté ils ont été tous briefés par ça hier j'ai entendu Kalidou Diallo qui parlait dans dans dans une télé mu ne oui du double nationalité affaire bi binationalité parce que. li mais Kalidou l il est de la mouvance non Kalidou il est Kalidou il est de la mouvance. il était mer ah. ngemb la on connaît dañuy ñëw def nii. ñu am dara <laughs> dem fële. ok man j'étais au PDS. ma PDS laa dafay politique 2004 laa bàyyi Abdoulaye 2004 loi Ezzan j'étais le responsable du PDS a Dakar Plateau en 1995 15 96 ma dem loon ma sant PDS nekk secrétaire général des étudiants en 98. d' accord nekk président de la fédération démissionné en 2004. d' accord et je dis ici devant Mamadou Ndiaye lu tax ma bàyyi PDS gis naa ko APR mais ku am ndey ku ma amul ndey. mais néanmoins je néanmoins. doo bàyyi mais bàyyi parce que dama gis lu tax may bàyyi loo xam ne mun naa xeex. dara si biir à l'intérieur mais cest quand on parle de la. politique du PDS c'était une erreur. c'était une erreur ah oui parce que gis nga ko fii mais doo bàyyi da ngay da nga koy xeex. à l'intérieur non c'est différent c'est différent. ok moom ab tabax dafa ne soo ñëwee si jotaay day am mag xale mag c'est la sagesse xale c'est la fougue et l'énergie avant j'étais fougueux. waaw ah, la nga nekkoon xale da nga doon jeune mais mm-hmm. aujourd'hui c'est comme un homme qui va la y' a un phénomène d'évolution et de processus. on ne se baigne jamais de, euh, la même dans la même eau. donc aujourd'hui loolu la ñuy naa gis ay erreurs mais je sais comment combattre ça man. sa jaaroon nga lu ma gëm lu ma gëm laay wax lu ma gëmul du ma ko wax. Mhm. moo tax gars yi di que Thierno da doon sale boulot amul benn preuve man je dis loolu c'est extrêmement grave et dangereux.